asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di ziar di leen bége bu baax a baax a baax a baax di am kontaan bu baax a baax ci ci suñu journée tey bi macha allah di wax di sant Cheikh Omar bu baax moom mi nga xam ne ñun ñëpp moo ñu fi dajale invité waa ahlul quran bi Dakar ak jamaatu ahlul quran bi mbuur ñu bokk jotaay bi mu nekk jotaay boo xamante ne jotaay. bu mag a mag la ci ñun ñi nga xam ne ñu jàng alquran di ci am kontaan bu baax a baax a baax di di kontaan bu baax baax a baax ci ñi nga xam ne ñun ñëpp teew nañ fi di ñaan yàlla yàlla barke alquran wàcc ci ñun rawatina wàcc ci waa Mbuur rawatina ñi nga xam ne waa ñooy ñooñu ahlul quran karim di ñaan yàlla yàlla eggalul ñu bis bi ba mu réussite total te incha allah njort nañ njort nañ ne yàlla dinañu may loolu yàlla defal ñu képp ku fi ñëw sa aajo faju ñi nga xam ne sax dañuy romb di xool ñun ñëpp yàlla defal leen na ajo faju jàpp nañ ne jotaay bi moom lépp li nga xam ne ñaan nañ ko si yàlla dinañ ko nangul Quran moom caf maanaam man moom koy jàng di di di gën a yëg sa bopp ndax lu mel ni alquran moom amut képp ku ko ñam te muy dëgg seew wallahi dootoo ko bàyyi te inchaa allahu rabbi yàlla ñu ci yàlla xiir lu yàlla di wax waatasimu bi xablillahi jamia wala tafarraqu loolu rek moom am solo buñ téewee bañ a bàyyi rek inchaa allah lépp luñ bëgg yàlla dinañ ko may képp ku topp alquran topp sunna inchaa allahu rabbi di nga bokk ci ñi nga xamante ne ñuy gañe comme aaya boobu di wax rek summa awrasna alkitaaba alladi nastafayna min ibadina ila axirihi yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu ñi xam ne dañuy nekk ñu xam ne buñ demee yowmal xiyaama duñ duñ tiit duñu ragal mooy inna alladina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu an laa taxaafu wala taxzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tuaadun yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu alquran moom ku ko ñam xam ne moom yemut ak dara dara dara ndax lee ay caaxaan la lee boo ko doon def fii ba suba ci àdduna ngay yem te yàlla téere bi lañuy ñuy toppaloo li topp topploo te ñun gëm nañ ne buñ ci toppee yàlla xam na ne duñ sànku ndax wax na ko ci alxuraan bari na bari yow man arada an zikri fa inna lahu maïsatan danka ñooñu ñi nga xamante ne dañoo du mooy alquran ñooñu moom boobaa duñu am dara waaye ñun ñi nga xam ne nag yàlla xiir nañ ci alquran ñu xam ne moom moo fi nekk te moom mooy dëgg mooy mujj incha allah képp ku ci topp daal yàlla moom dina la incha allah di nga dugg man moom lu may lu may dénk nit nañ topp alquran leneen lu dul alquran moom ay naax saay la loolu moo fi am dëkk bi tey soo xoolee eh, boo xoolee jamono ji alquran moom mi ngi commencé am doole waaye su ma sañoon nag ñu bañ ko yemal ci weeru koor kase doole mi ngi feeñ ci ñun ci weeru koor rek daanaka soo xoolee lay gën a lañ koy gën a génnee moom lañ koy gën a génnee su ma sañoon nag moom même vacances sax gars yi dañuy def ay concours alxuraan loolu moom xam naa bu ñu def ay yeneen caaxaan yi ñuy def ay di ay millions ay kër yooyu yëpp ñu indiwoon ko ñuy jàng alxuraan moo gën fuuf tiyaab bu ci nekk kenn xamul lu mu toll mais yàlla ñu yàlla xiir daal ci alxuraan. moom amul problème gars yi <laughs> nekku njiit yi ñun ay ndongo yu ndaw lañ rek ñu mel ni Malick ay Souleymane ñëpp ñëpp ñu ngi daal. gars moom boo ñëwee rek ñu boole seen bopp ndax alxuraan di kenn moom ko. di am kontaan bu baax a baax a baax di ñaan yàlla xiir ñu ci alxuraan. rey ñu ci ñu dund ci sax ci yàlla may ñu gudd fan bañ dee ci alquran macha allah yàlla na ko yàlla def ci barke weer koor bii ñu jóge ci barke alquranul karim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa